naafila online moom ba naafila <laughs> waaw waaw c'est comme saa def li yàlla bëgg boo xam nga xam nga gëm-gëm dafa foor donc euh, boo defee loo xam ne moo dal sa xel rek mu ngi noonu quoi. papa yow sa sa <laughs> intervention la soxla tey. coon coon li ma ci jaaxal ginnaaw nee nañu maanaam ilimaan bu dul nafar faaw ngay gag léegi su gag amee foofa. jaaxal na ma man man tam. waaw ah, su gag amee. et puis itam ndax di nga am droit sa bët changer de direction parce que bu fekkee ne na naa fi la online. waaw su gàgg amee ku lay gàgganti. am na looy xool. parce que il faut nga di ko xool di di ko déglu. waaw di déglu waaw. te normalement julli moom du du xocc la ñuy wax. du xocc mais mais bu dul foofu sax. boo demee ci lax dara yu téere bu ndaw boobu rek daf lay wax ni la atafakkur. atafakkuru ngay xalaat fi amri duniyaawiya ci ay mbiru àdduna yu naa fii day dàq alxushon a saragal yàlla mooy benn ki nga xam ne mu ngi lay jiite tey nga teg téléphone ci kanam moo mm. xam ak nu mu la mën a jiitee mm. par force sa xel du nekk ci julli gi mm. mais tey yow boo sujoo boo sujootee bu dee ci moom ngay roy faw ngay xool bu reconwee faw ngay xool bu sujootee waaw léegi bu ah. téléphone bi vidéo nooy def <laughs> day na waa question bu samp la bu connexion bi dawee nooy def. mu ngi noonu léegi si imam Gagé da nga koo war a jàpp ci mbub ma ñoddi ko ne ñaadam teggi benn tànk daw ca fa mu nekkoon. waaw léegi su Gagé. waxuma la gag sax tey mën naa dem ba ci biir tey ñu baal ma njàppam toj ci biir julli gi léegi yow nan ngay koy uutelee muy benn benn bi ci des mooy moom mi lay jiite ci boppam bu lay jiite faw ngay roy ci moom tey ki nga xam ne daa dabe bu ñëwee fan lay xam fi imam toll. ak bu tollee décalage wala ah? baalin amin yow looy wax. dégg nga docteur ni mu wax. xanaa. Hmm. ba gàgganti online. gàgganti online docteur online gàgganti online. gàgganti online ah! ah. ah si parce que. Pape euh, euh, euh, waa ji bi muy dem dafa xuloog soxnaam bëgg a moom bi muy dem voyage. Hmm. daf ko bind lettre ci ci kaw lal bi. Hmm. ni ko dama war a dem aéroport à à à vingt sept du matin bu sept heures du matin jotee na nga ok. soxna si bi sept heures du matin jotee tamit mu daal di bindaat beneen fooy daal ni ko acca yeewul sept heures du matin jot na daal koy teg ci wetu beneen fooy bi am mhm. dire daf ko daf koy yar ci ci bëgg a jubóog moom ci fooy mais soxnaam tamit daf ko corrigé waat ci fooy bi woon mënoon na ko yee ni ko heure bi nga wax jot na mais comme joxu ko respect ba bind ko ko ci fooy ndaw si bi yee jotee daf ko ko bindalaat ci fooy tegaat ko ci kaw lal bi bàyyi ko foofu. xam naa am na <laughs>